même si voilà même bu dee ñun ñëpp jàng nañ droit pour quand même euh, mais mais wax ni euh, nekkul foofu li am solo mooy may euh, mun Maïmouna actuellement président moom rek moo mën a convoquer le corps électoral am déet. la la décision du conseil constitutionnel s'impose à lui. mais oui. il est obligé de convoquer le le le, le, le corps électoral. merci il doit le convoquer dans les plus dans les meilleurs délais dans les meilleurs délais parce que c'est du français que le conseil conseil français le bind mu leer. dans les meilleurs délais. en tout cas warul excéder war nañ def lépp balaa le 2 avril. waaw léegi le 2 avril fan lañ ko bind ci constitution. ah le 2 avril fan lañ ko bind ci constitution. non c'est la durée mandat bi ci lay ci lay jeex. fii fii nit ñi prêter ñu serment ay décembre wala janvier fii ci réew mi. non kañ. Abdou Diouf prêter wul fii. kañ xoolaatal Abdou bi muy njëkk a falu ba kañ la prêter serment. depuis en tout cas depuis la constitution de 92. fii Sénégal ah oui le 2 avril le président di fi. Abdou Diouf 1er avril la mujjee kii eh, eh, Abdoulaye avril. la waaw le mandat. non damay wax rek dama ne la date là la date fétiche là mis dans la tête des Sénégalais euh, on parle de de de de mandat. le mandat a la durée du mandat qui est de ans. may ma il se termine. le 2 avril 2000 <laughs> <laughs> il se termine le avril 2024. xam nga dañuy dañuy dem ci waxtaan wax sa xalaat wala ci yenn saa de disposition de de euh, mais dama le mandat c'est sa durée on te dit c'est aussi euh, la constitution qui le dit que le président est en exercice jusqu'à l'installation de son remplaçant. du dëgg pour ci constitution bi la nekk. ma ma gars yi dañu foog dañ koo dugal ci mais y a un alinéa dans la constitution boo xam ne bu koy clarifier muy benn ça si on veut aller vers des solutions si on veut maintenant que chacun nekk ci zone am di tirer pour nous imposer une crise dans laquelle nous n'allons pas sortir nous en mais tant que mais on ne nous impose pas une je dis nous je parle de tous c'est la majorité présidentielle qui nous ont mis dans cette crise là. mais euh, <laughs> kenn imposé wu leen crise yéen a ñu dugal ci crise. <laughs> mais dama ne ñun président lan la def. dafa aj dafa ajandi li mu convoqué ba pare woo sénégalais yi li ñu toog ñu waxtaan nañ ko bëggee ni ñu xalaatee parce que moom kuy dem la li ma bëgg sa seule volonté aujourd'hui c'est de laisser un pays en paix mais conséquence nee na amul droit nee na amul droit reporter élection bi amul prérogative boobu mais il n'a pas l'intention <laughs> de reporter moo tax d'ailleurs les gens n'avaient pas touché aux articles concernant la durée du mandat maintenant du ñu nekkaat fii di wax parce qu'il y une décision du conséquence constitutionnel on est d'accord cette décision aujourd'hui nous dit clairement mënuñu organiser les élections le 25 maanaam dimanche prochain mu ngi ci décision bi tax bi ñuy opposé décision boobu moo ne les autorités compétentes kan la c'est le le c'est le, c'est le chef de l'État mooy jël décret convoqué c'est ce sont les les autorités administratives et cetera ñëpp ñi nga xam ne am nañ pàcc ci wàllu élection bi ñoo war a xool xool lan la code électoral wax LO 137 lu mu wax ce décret il doit intervenir au moins quoi vingt jours avant le jour de l'élection déjà mu ngi ci code bi donc yooyu yëpp la nit ñi toog waxtaane ko xool est-ce que euh, conseil constitutionnel sa liste là de 20 mooy resté wala elle devient 19 sur quel artifice juridique wala dañuy permettre ñenn ñi ñu bokk wala ñenn ñi ñu bokk mais loolu ñun dëkku waxtaan la ñu ne woowuñu pays de la teranga pour rien mais nañu toog waxtaane loolu. mais mais mais monsieur le ministre fi mu nekk nii da ngay def affaire politique. déet man li ma wax dafa leer dañu toog waxtaane ko loolu rek laa fi gis ci solution parce que la ci des yëpp ku ne da ngay xëcc. boo leen di toog di waxtaan tamit y a des délais impartis di ngeen ko respecter par force. loolu la conseil constitutionnel mais bu ñu lu ñu lu ñu proroger nag du ñu toog waxtaan. non y a des délais impartis. non dama ne conseil constitutionnel nee na ngeen ko ci délai yooyu. cher ami ñun ñëpp man par boo mu joxee date je peux faire un rétroplanning. ah parce que. conseil constitutionnel un rétroplanning conforme à nos textes de loi. il faut pas que beneen euh, cas rattrapé ñu. non xaaral ñu ñu def un peu de pédagogie président dafa jël décret abrogé décret bi convoqué le corps électoral. conseil constitutionnel nee na amu ci droit amul droit reporter élection présidentielle bi surtout que report boobu dafa impacter sur la durée du. non président dafa euh, conseil dafa ne. Ah. amuloon droit abroger ko parce que ah. amuloon base légale pour. def mu ngi noonu. deuxième chose parce que li mu sëkkandikoon loolu la dàq. voilà ngeen maanaam l'initiative parlementaire bi voter cette loi constitutionnelle mu une nouveauté yaa ko yaa ko introduire du point de vue de la jurisprudence quand même euh, les juristes auront à débattre beaucoup sur mu ne la modification de l'article le caractère la la, loi a un général et impersonnel oui. cette modification de l'article bi c'était déjà en 2016 non seulement amul caractère général et impersonnel mm. mais dafay violer les dispositions de l'article 27 euh, des articles 27 euh, sur la durée le nombre de mandats de l'article 103 sur la clause euh, d'éternité euh, autour du, du, du mandat le conseil constitutionnel ne maintenir na la liste des vingt candidats. waxu ko de. si dafa ne ah, wax na ko. dans son curé loolu bokku ci. si la liste des vingt candidats mu ngi ci. dans sa décision dernière la xoolal décision bi. ah, ah ma génne ko. la liste des vingt candidats. léegi li waaw léegi loolu ça veut dire que am na koo xam ne moom. léegi léegi. <laughs> liberté provisoire la nag comme on dit. puisque ces décisions ne sont pas susceptibles de recours mmh. et puisque comme l'a dit une fois Isaac Foster à Léopold Sédar Senghor même les erreurs du Conseil constitutionnel s'imposent à nous mmh. aujourd'hui le gouvernement est dans l'obligation le président de la République est dans l'obligation de reconvoquer le corps électoral et d'organiser les opérations de sorte à ce ñu bañ a génn le 2 avril. Mais date prévue de la passation de service dans la tête moi je vous c'est. <laughs> date prévue pour la passation de service. le 2 avril au le 2 avril. le mandat Macky Sall ah, jeex non binduñu ko fenn conseil conseil waxuloo mandat a démarré. conseil waxuloo ko du benn ñaareel bi mandat bi 2 avril la commencé. day jeex le 2 avril benn jour mënu cee mënu cee teg sinon dañuy violer deux articles deux éminents articles de la constitution. waa léegi yow xam nga par exemple ku neexee jóg suba wala lundi jël décret convoqué conseil eh, kii bi. Eh, ah. yow jàpp nga ne loolu mooy faj mbir yi fii ci Sénégal fi ñu toll nii. non il est obligé mu tonk ci li conseil constitutionnel wax. bu bëggul tomber dans l'illégalité. conseil bi li mu wax dafa leer faites-lui pas dire ce qu'il n'a pas dit le conseil. le conseil invite les autorités compétentes à convo à convoquer ce corps électoral dans les meilleurs délais. ma gis naa ñeneen sax commencé di kii génn maire de naan dans les plus brefs délais ñii naan la nangam ñii di jox ay dettes mais quand même nañu respecte d'abord les institutions davantage notamment cette institution la ba pare jiital l'intérêt des Sénégalais et du Sénégal